أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكشف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بقيتي الله تبارك وتعالى ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi sunu xutba tey mooy al ihtimaamu bil masajid wal muhaafazatu alayha mooy soññ gi ñu soññ ngir ñu war a yittewoo néegu yàlla yi ak di ko wattu sunu borom subhanahu wa taala mooy ki nga xam ne jaala buyutahu fil ardi al masajid moom yàlla tabaraka wa taala màggaayam ak kattanam li mu soxla ci kaw suuf te yittewoo ko mooy jàkka yi mooy ay néegam mu yónni yonent bi alayhi salaatu wa salaam yonent bi xemmem loonu pour ñu bàyyi yitte ci néeg yooyu di ko toppatoo di ko laabal di ko setal ba keroog bés pénc mbokk jullit yi inna al masajid buyutullahi fi l ard jàkka yi ñooy néegi yàlla yi ci kaw suuf jaalaha mathabatan wa fadlan wa mashrafan lil hidayati wan nuur sunu borom subhanahu wa taala mooy ki def jàkka yooyu néeg yooyu muy amukaayu tiyaaba ku bëgg tiyaaba rek jublul jàkka yooyu jublul néeg yooyu sunu borom di fa sotti ay waamey xéewal waaye ku bëgg a jub néegu yàlla yooyu mënta ñàkk ci sa dund néeg yooyu ñooy wàccukaayu malaaka yi ci kaw suuf yàgg ngeen dégg ñu ne jibril wàcc na ci sayduna muhammad boo demee Médine fa yonent ba tëdd muy jàkkaam ja jàkka jooju nga xam ne moom la yonent bi tabax ci loxoom da nga fay gis benn bunt buñ tuddee baabu jibril ñu ne la bunt bii la jibril daan wàcc suy ñëw ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci bunt bii la daan jaar kon néeg yooyu di néegi yàlla yi mooy wàccukaayu malaaka yi suñuy indil yonent yi mbégte wala ñu leen di indil yërmande wala ñu leen di indil yëw wala ñu leen di indil dal ci jàkka yooyu la ñuy teew yonente alayhi salaatu wasalaam sax mu ngi nuy bàyyiloo xel bis bu nekk bu ñu nekkee ci jàkka ndax du nun rek noo fay nekk ndax malaaka yi dañ fay nekk ànd ak nun yonent bi nee na yataaqabu fiikum malaa'ikatum billayli wa malaa'ikatum binnahaar wa yajtamicuuna fi salaati alfajri wa salaatu alasri summa yacruju alladina baatuu fiikum fa yasaluhum rabbuhum wa huwa aclamu bihim kayfa taraktum cibaadii fa yaquluuna taraknaahum wa hum yusalluun wa ataynaahum wa hum yusalluun ki yàlla yónni woon ci ñun muy Muhammad nee na yataaqabu fiikum malaikatun billayli wa malaikatun binnahaar mu ne dana remplaçante ci yéen dana wuutlante ñii dana ñëw ñii dem ay malaaka yoo xam ne dana ñëw guddi ak malaaka yuy ñëw bëccëg fan la ñuy dajee malaaka yooyu ñii dañuy dem ñii di ñëw guddi ak bëccëg ñaari groupe malaaka lañ waaye kañ la ñuy daje ci yéen ci julli suba bu ngeen di julli fajar ak bu ngeen di julli takkusaan ñaari groupe malaaka yooyu dañuy daje malaaka yu mbokk yi ndax xam ngeen yéen malaaka la mooy malaaka yi ñuy wattu sooy dox kii ci kanam kii ci ginnaaw boo toogee kii ci mbaggu ndeyjoor kii ci mbaggu càmmoñ boo tëddee kii ci bopp bi kii ci tànk yi ñoom ñoo ñuy wattu kiraaman kaatibiin lañ tudd raqib ak atid ñoom ñooy bind jëf yi danañu wuutante nag ñaari groupe yooyu ci julli fajar ak julli tàkkusaan ñoom malaaka yooyu fan la ñuy dajeeg ñun ca jàkka ja moo tax ñoom malaaka yooyu bu ñu yéegee jëm ci yàlla yóbbu jëf yi malaaka yi fanaanoon ak ñun yeneen yi ñëw fajar ñu daje jàkk ci jàkka ji ak yow mi julli si woon ak ñaari groupe malaaka yooyu suñu yóbbee sa jëf ci yàlla yàlla daan leen di laajte moo leen gën a xam fa yasaluhum rabbuhum wa huwa alamu bihim kayfa taraktum ibaadi waaw yéen malaaka yi ñu daal di wuyu ne labbayka yow sunu borom wuyu nañ la mu ne sama jaam ñi ci lan ngeen leen bàyyi malaaka yi ne ñun dey ba ñu ñëwee ci fajar dañ leen bàyyi ñuy julli ba ñu ñëwee tàkkusaan dañ leen bàyyi ñuy julli allahu akbar léegi nag ki dul teew jàkk kon moom du julli fajar nag ki dul yeewu fajar kon moom comme malaaka yi lu ñuy wax ci mbiram ki dul dem jàkka tàkkusaan kon malaaka yi lu ñuy wax ci mbiram malaaka yi ñooy tontu ne yàlla taraknaahum wa hum yusalluun wa ataynaahum wa hum yusalluun bañ leen fa doon bàyyi dañ leen bàyyi ñuy julli ba ñu ñëwaatee tàkkusaan dañ leen fekk ñuy julli fa min almasajid yasadu lkalimu tayyib wax ju baax wax ju yiw wax ju sell ak jëf ju baax ci jàkkalay bàyyeekoo yéeg kaw asamaan wa ala manabir yaxtubu alxutabaau aljuma ci kaw minbaru jumaa yi ci la imaam yi di xutba jumaa di fàttali jullit ñi ci seen mbiru diine di fàttali jullit ñi seen borom tabaraka wa taala nuñ ko war a toppee ak nuñ ko war a jaamoo wa yataarafuna fiha ci jàkka la jullit yi di xamante ci jàkka la jullit yi di amee mbëggeel ak cofeel moom jàkka sunu borom subhanahu wa taala ngëneel yim ko jagleel mooy pàkk yi yàlla gën a bëgg ci kaw suuf mooy jàkk moo tax ñu ne waman daxalaha kaana dominan ku dugg ci jàkk am nga sécurité ndax lan ganu yàlla tabaraka nga ta wa taala la te ku nekk ganu yàlla yàlla dina la teral allahu akbar nekk saa yoo duggee ci jàkk dangaa ziyaare ji yàlla yonent bi nee na ku ziyaare ji nit ka nga ziyaare ji am nga ci moom àq mu teral la kon ki ziyaare ji yàlla nag kooku yàlla moo ko warlul ne moom yàlla dana ko ziyaar dana ko jog yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na man tawadda fi bayti fa ahsana alwudua summa ata almasajid wa huwa zairu llahi képp ku jàpp sa kër nga romb kër gi waaye ba ngay jàpp yaa ngi rafetal njàpp mi ndeke même mooy jàpp nekkul sotti ndox rek raxas loxo raxas gémmiñ raxas bakkan ndeke sax da nga ko war a rafetal fa ahsana alwudua mu rafetal njàpp mi lan mooy rafet na mooy nga njàpp njàpp mi yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon jàpp mooy jàpp sunna nga bañ cee boole benn bidaa summa atal masjida nga romb kër gi jubal ci jàkka ji yonent bi nee na gane ji nga yàlla am nga droit ca ka nga gane ji mu teral la te ku gane yàlla yàlla teral la abu darda nee na radiallahu anhu wa ardaahu li ibni da doon yeddu doomam ndeysaan di ko jubanti ak di ko soññ ne ko yaa bunay li yakun almasajid baytuka fa inna almasajid buyutul muttaqin doom fexeel jàkk ne nekk sa kër julli ci biir jàkk moo ngi mel ne jën ci biir ndox jën boobu ngee xam dooleem wala mën ndoxam wala capacité am wala kattanam doo ko génn ci suuf da nga koy fekk ci biir ndox mi kon nga xam jën lu mu mën loolu la ab jullit mel ci biir jàkk jàkka su fa jullit nekkee moo ngi ci yërmande yàlla yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na jullit su duggee jàkk ci teggi ni jàkka yi na dugal tànk ndey jooram mu wax bismillah wassalatu wassalaam ala rasulillah allahumma aftah li abwaaba rahmatik mu daal di dugg mu ne boo duggee fexeel nga dem premier sappe ndax jàkka ji ñi fi ëpp tiyaaba mooy ñi nekk premier sappe premier sappe ñi ci ëpp tiyaaba mooy ñi nekk ndeyjooru imaam ndeyjooru imaam fan la tàmbalee mooy diggante ñaari mbaggam yi mbaggu ndeyjoor ak mbaggu càmmoñ ña féete ndeyjoor bi yonent bi nee na ñooñ ñu ëpp tiyaaba ci jumaa ji sàppe boobu mooy gën bi gën ci sàppe yi mu ne sàppe ba ci gën a yées mooy ba dend ak jigéen ñi bu dee ca jigéen ña sàppe bi gën mooy ba ca ginnaaw bu dee ci góor ñi sàppe ba ca gën mooy ba ca kanam mu ne boo ñëwee julli ñaari rakka nga toog nga nuyu jàkka ji dafa bokk ci teggini jàkka ku dugg ci jàkka da ngay julli ñaari rakka nga toog nuyu jàkka ji loolu mooy tahiyatul masjid mu ne su ko defee sunu borom subhanahu wa taala dina la yónnee ñaari malaika malaaka bi toog ndeyjoor bi toog càmmoñ kii naan yàlla jéggal ko kii naan yàlla baal ko te jullee guloo farata bi kon loolu ku ko dëkke mbokk yi ci lan ngay nekk abu darda ne doomam fexeel jàkka nekk sa néeg fexeel jàkka nekk sa kër ndax jàkka mooy néegu gaa yi ragal yàlla mu ne ko dégg naa yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne man yakunil masjid baytu damina allahu taala lahu rawx warrahma waljawaz ala sirati ila aljanna abu darda ne doom ji dégg naa yonent bi ne képp koo xam ne dangaa dem jàkka sa kër yàlla garantil la ci texeel la yërëm la ëllëg jéggil la siraat nga dugg aljanna ayuha almuslimun yéen mbokk jullit yi inna lil masajid ahamiya kubra fi lbinai almujtamaat almumina wa nashr alilmi walsaqafa waltasyidi jàkka mbokk yi ci islam dafa am importance jàkka mooy tabax société islam li tax tey addina bi li tax tey sunu réew mënta jag c'est parce que nit ñi feneen lañ leen di tabaxee fa dul jàkk yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ko yàlla yónnee pour ngeen xam ne jàkk mooy tabax nit ba mu nee cëpp Médine balaa muy tabax këram lan la njëkk a def jàkk la njëkk a tabax balaa muy tabax këram balaa muy tabax këram jàkka la njëkk a tabax bi jàkka ji paree ci li desoon fa lañ ko defal ay néeg mu wër jàkka ji jàkka jooju fa la yonent bi defee Aboubacar Saddiq fa la ko defaree fa la yonent bi defaree Umar ibn al-Khattab Ammar ibn Yasir Bilal Musab Ali Ousmane ibn Affan na yonent bi defaree góor ñi ca jàkka jooju noonu la defaree jigéen ñi jàkka jooju wala jàkka mooy place bi ñuy defaree nit yàlla yi nit kenn du ko defaree ci kër kenn du ko defaree ci école jàkka rek mooy tax nit defaru mooy da ngeen jàng ci taarix ñu ne al masjid muntalaku daawa même caravane yonent bi daan yónni ñuy dem di tasaare ji lislaam ci jàkka ji la ñuy déparé ci jàkka ji la ñuy jàngee yonent bi ci jàkka ji la doon jàngale sahabatul kiram abu hurayra mokkaloon na deux cinq mille trois cent soixante quatorze hadis fan la ko mokkalee ci biir jàkka ji moo tax keroog ba yonent bi génne àdduna Abu Hurayra dem ca marché ba daan ne gaa yi ña ngay séddale alalu yonent bi ña ngi koy miraas ña ngay miraas yonent bi waa marché ba fàq daw ñu ñëw dugg jàkka ji ñu fekk ay mbooloo yu toog ñee ngi jàng ñee ngi tudd yàlla ñële ña ngay jàng alquran ñee ngay def seeni askar gaa yi ne ko waaw yow nga fekk ñu marché ba ñu nekk ci suñu liggéey nga ne ñu ña ngay seddale alalu yonent bi ñu ñëw fii gisuñu dara gisuñu benn bagage mu ne yonent bi bàyyi fi bagage lii ngeen gis ci jàkka ji lii la fi yonent bi bàyyi ku ci bëgg bismillah toogal ci benn mbooloo commencé jël kon jàkka ci la ñuy defare société jàkka ci la ñuy tasaaree xam-xam yaay Aysa mokkaloon na 2210 hadis mu ngi ko mokkalee ci jàkka yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàkka ci la ñuy tasaaree culture islamique jàkka ca la ñuy defaree mag ña ci la ñuy defaree borom xam-xam yi looloo tax mbokk yi foog ñu jox jàkka yitte suñu diine diine lislaam sant nañu ñaax ñu pour ñu yittewoo defar jàkka yi ak di ko toppatoo wa rattaba ala dalika sawaban azim moom yàlla sax daf cee teg tiyaaba ju rëy ci kuy defar jàkka ak di ko toppatoo yonente alayhi salaatu wasalaam dafa amoon benn màgget bu jigéen bu ñuul bu daan bale jàkkaam ji xam nga nit ñi ndeysaan boo rombee benn waaye muy bale pale palais de la république da nga naan kii de texe na ndax moom bu buggee gis président da koy gis ndax président yenn saa yi dina ko romb wax ak moom wala sax mu defal ko dara waaye boo romboon kuy bale jàkk da nga naan kii moo gën a torox ci nit ñi wala tey am na ci barab yoo xam ne ci ñun kuñ fa jëloon ngay liggéey nga koy bale say mbokk dañuy jibile daal ne texe nga moo tax ndaw sa ndeysaan saa yu xëy rek gàddu baleem ak ratoom ak pañeem di bale jàkk ji ndaw si faatu gaa yi taxañ taxañee ko rek sànni ca mbalit ma suul sallallahu alayhi wa sallam jumaa jot da daan gis ndaw si ndeysaan fajar gi mu nekk ci jumaa ji bale jumaa jot yonent bi génn gisul ndaw si mu ne waaw ana ki doon bale fii gaa yi ne ko faatu na démb ba ñu roobi ko mu ne la hawla wala quwwata illa billah man may dund ndaw si faatu kenn waxuma ko ana ñi ko doon suul ñu ne ñoo ngi nii mu ne wal leen ma fu ngeen ko denc yonent be gaa yi bañ ne bàmmeelam a ngi nii yonent bi jullee ko ci kaw bàmmeelam ndax lan bëgg mu texe sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk jullit yi sunu borom subhanahu wa taala mu ngi ñuy jàngal ci Qur'an mu ne innama yaamuru masajid allah man amana billahi wal yawmi al axir wa aqama alsala wa ata alzaka wa lam yaxsha illa allah fa asa ulaika an yakunu min almuhtadin qala sallallahu alayhi wa sallam man bana masjidan lillahi ka maqsah fatat aw asgar bana allahu lahu baytan fi ljanna yeneen bi nee na xam ngeen kan mooy dundal jàkk innama yaamur masajid allah kan mooy dundal jàkk ñu ne ah mu ne man amana billahi ku gëm yàlla moom ngay fekk muy toppatoo jàkk muy dundal jàkk di ko yaatal di ko def ba mu rafet lu tax ndax dafa gëm yàlla man amana billah wal yawmil axir dafa bàyyi xel àllaaxira ne day dee moo tax nga gis ko muy dundal jàkk wa aqaama salaa kii dundal jàkk mooy ki fay taxawal julli wa aata zaka kii dundal jàkk mooy kii joxe azaka kii dundal jàkk mooy ki nga xam ne ragalul kenn kudul yàlla ragalul kenn kudul yàlla mu ne fa asa ulaik an yakunu min al muhtadin ñii ma lim mooy ki gëm yàlla gëm alaxira di taxawal julli joxe azaka ragalul kenn ku dul yàlla yàlla mu ne ñii ñooy ñi jub yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na képp ku tabaxal yàlla néeg même bu dee kirinting nga ko def même bu dee sàkket nga ko def même bu dee ñax nga ko def mu ne ëllëg yàlla tabaraka wa taala dana la tabaxal ci biir aljanna sato ayyuhal mu'minuun yéen way gëm yàlla yi wa min wujuhil i'maari a'maari al-maadi wa yatamassalu fi binaa'i al-masaajid wal inayati biha min siyanati والنزافة وغير ذلك وفي هذا الجانب ثواب عظيم فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد بقي سنو دين جيد الإسلام دين لا جو خامن خمم لونا وي گم يالا يي كي يتهو جاك توبتوكو waaye ci Sénégal rek ngay gis ñuy tabax jàkk di ko yalwaanal nga gis ay nit yu taxaw yor ay mbuus wala takki rajo di yuuxu luñ koy dee ñëw leen ñu tabax jàkk ji kan ci ñun moo tabax jàkk moo tabax néegam yalwaan ko kan ci ñun moo tabax këram mu yalwaan ko mbokk yi kan ci ñun moo tabax këram ak moobal ya fa nekk mu taxaw yor muus naan sama kër laay tabax kaa leen ngeen dimbali ma jàkk ji nekk ci notaire maam Abdou Aziz rahimahullah moo tegoon première pierre bi jàkk ji tëx pare ay at yu bare bari jàkk ji tëx pare ba ci at yu mujj yi ndeysaan la benn waaye ñëw rek tabax ko benn vendredi boobu jumaa yu bëriwul boobu ñëpp fee la ñuy julli ci benn vendredi ñu toog mu des cinq minutes imam ñëw jumaa jaa ngi ne teg ñii ngi def ay azkar ñii ngi jàng alquran yëf ñi ne teg rek kenn ku wàññeeku daal di dugg ci buntu ndeyjoor bi ku wérul kooku ñu naan dof mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullah ñëpp ne wa aleykum salaam wa rahmatullah mu ne da ngeen ne da ngeen gëm yàlla gëmu leen dara da ngeen di wax rek seen kër yëpp tabax ngeen ko bàyyi néegu yàlla bi bu ngeen gëmoon yàlla néeg bi ngeen di njëkk a tabax ajjuma bii di ñëw ku nekk na ma fi indil benn birig ñu tabax jumaa ji aqulu qawli haza wa astaghfirullah li wa lakum mu daal di génn dem yoonam nit ñi ne kii dafa dof ñii ne kii dofu waaye ku xool ni mu mel yére yeeg yaram bi da nga naan kii moom dafa dof waaye li mu wax ndax dof dina ko wax yàlla na yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yàlla na yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori alhamdulillahi waxda ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله jàkk jooju wala néeg yooyu di néegi yàlla nga xam ne malaaka yi dañ fay wàcc ab jullit dañ ko sant buy dem ca jàkk jooju ca néeg yooyu mu defaru yàlla ne xuzu zinatakum inda kulli masjid su ngeen dem ci néegu yàlla yi na ngeen defaru mbokk yi kenn ku nekk ci ñun toog fii ci biir jàkk ji wala ci kaw wala ci biir wala ci biti boo doon dem pale ndax yére yi nga la neex ngay sol da nga koy waaj wala doo ko waaj te ngay defaru wala doo defaru kon booy dem ci yàlla rawatina yàlla ne la xuzu zinatakum inda kulli masjid bu ngeen dem ci jàkka ji yàlla nee na ngeen defaru bokk na ci teggi ni dem jàkka yooyu sangu xeeñu gët bal sax yonent bi dafa ne man akala al basala wa sawma wal karaasa fala yaqtaribanna masjidana fa inna al malaika tataazza mimma yataazza minhu bani aadama yonent bi nee na bu ngeen dem jàkk bu leen lekk soble bu leen lekk laaj mu ne ndax malaaka yi ñaar yooyu day lor malaaka yi te lii lor doomu aadama yi day lor malaaka yi booy dem jàkk mu ne bul xeeñ xet gu naqar yi bu lekk laaj bu lekk soble waaw kon ngay dem jàkk xeeg yeneen yu dul lii nag mu ne bokk na ci teggi ni jàkk almasyu alayha bi sakina sooy dem jàkk da nga war a dox ndànk waroo yegg ci jàkka ji di xiixa waroo yegg ci jàkka ji ñaq di sotteeku ci yow doxal ndànk loo fa fekk ci julli gi nga julli loo fa fekkul nga daal di fay julli ga dox ndànk wa xaasa ida samia al iqama mu ne na rawatina nag boo jëmee ci jàkka ji nga dégg ñuy ixaam waxul nodd de nga dégg ñuy ixaam ndax foofu da ngay jàpp ne raw nañ la kon mu ne doxal ndànk mu ne ida samitum al iqama fa atuha wa antum tamsuuna wa alaykum bisakina fa ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu bu ngeen déggatee iqaam dox leen ndànk ngalawaay dugg leen ci jàkka ji fekk yéen a ngi dox ànd leen ak dal lu ngeen fa fekk julli leen lu leen raw fay leen mbokk yi ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala dañu am gan gu ñëw julli si ak ñun mooy meeru jidda caaroy kaw kilifa gi ñu ngi koy woowee Cheikh Dieng ak ay mbokk yu mu àndal li tax mu ñëw julli seeg ñun nag xam ngeen ko ndax dañu nekk ci barab bi bëggoon mu gis ko trop benn waay ñëw fi di ñu xatal espace bi ni mu xatee mu ñëw ne fi tabax këram ñuy wër kuñ ci jàppale ba ñu dégg ci moom déggin bu baax ne moom de chaque jour mu ngi taxaw ci côté population bi ñu jël dem seeti ko ñu fekk lañ ñu waxoon dëgg la mu wax ñu ne ñun man ci côté population bi laay nekk tout le temps dara du leen métti fekk waa ji defal nañ ko kayit fu nekk fu mu dem ay kayitam yooyu lay génnee moom mu ñeme am fit ani la kayit yooyu def ay arrêté tasaare ko fépp yónnee ñu ko fu nekk pour bayaal bi des bayaalu jàkka ji bayaalu jumaa ji moo ngi di toog liggéey bu rëy bu rëy boobu nag nga xam ne fu nekk lañ dugg tribunal police préfecture mairie ministère fu nekk lañ dem waaye moom dong moo ci taxaw moo ngi di toog noonu mu taxawee ci mbir jàkk ji yal na yàlla taxawee noonu ci ay mbiram àdduna ak àllaaxira noonu mu sàmmee néeg bii ba mu des war a nekk néegub yàlla yal na ko yàlla sàmmee noonu ñun duñu ay politiciens waaye ku def lu baax ñu wax rawatina nag ku jàppale néegu yàlla rawatina nag ku taxaw ci dëkk bi am fit dem ba jël avocat pour loolu kon dëgg-dëgg moo tax ñu invité ko tey ci jumaa ji mu ñëw julli soog ñun korite la bëggoon ñëw julli seeg ñun yàlla dafa def ñu julli woon dimanche mu woo ma mu ne ma damaa bëgg a julli seeg yéen ma ne ko ñun julli nañ démb nañ bàyyi ba ajjuma nga ñëw julli ajjuma yëpp suñ ko programmé yàlla def mu am ngant ba ajjuma bi tey yàlla def mu ñëw moom ak équipe am ñu ñëw ànd si julli si ak ñun kon suñu paree julli mbokk yi ñun ñëpp ñu toog bàyyi ko mu jël kàddu suñ paree ñu def ñaan ñu ñaanal ko won ko barab bi won ko waa ji fi mu bëgg a tabax ñu won ko mbir yi moo ngi nii mu gis ko bëtam gis na jumaa ji ni mu feesee ci kaw soo fa demee ay njël fa ci biir kër gi ay njël fa jumaa ji day fees ba ñuy baare tali bi waa ji bëgg a ñëw bëgg a tabax nii waaye taxaw bi mu ci taxaw gis nañ ko ñoo ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala mu fay la beneen boo xam ne chaque jour dinañ ko def tey dañoo am gan sax naruma ko woon def waaye ki ñëw ci man dafa daw sama yaram benn jigéen bu doon togg taal gaz gaz bi explosé ci kaw yaram bi yëpp lakk faju na sax xëy na wér na mais boo ko xoolee rek sa yaram day daw ci yu muy war a naan ay garab ay ordonnance wax dëgg yàlla tey dañoo amoon gan nar ma ko woon wax waaye ni ma ko xoolee rek ma ne ko bàyyil bu ñu paree incha allah dinaa wax mbokk yi lu ñu la mën a dimbale ñu dimbale la ko incha allah kon bu ñu paree su maire di jël kàddu ñeneen ñi ñu génn dem xool mbokk yi lu ñu mën a dimbali ndaw soosu ci lu muy jënd ay meew ak yi muy war a naan xam nga fuy taal di toggal sa njaboot gaz explosé sa kaw kooku dëgg-dëgg métti na torop noo ngi ñaan yàlla musaafaral ko allahumma arina alxaqa xaqan warzuqna ittibaa wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba allahuma ya muthabbitu alqulub thabbit qulubana ala taatik allahuma inna nasaluk alhuda والتقى والأفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والصهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله